asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man la Seydina Ousmane drame bu la réveiller conscience euh, dañu desiwaatoon rek ci combine yi nga xam ne moo dara yàq réew mi muy réew moo xam ne depuis que le Sénégal et le Sénégal ces formules de combine politique moo fi mas am wax naa leen ba tàyyi da ngeen di référence ci 1896 ngeen di jël référence ci bi Faidherbe bi bëgg a quitter ñu ne ko balayer le Sénégal ratisser et rassembler ci la Faidherbe bu jugoon taal fi trois mille et quelques villages lim fi rey ci ay doomi aadama kenn xamut nu mu toll université bi nekkoon Pire bu Xaali Amar Fall université construite en c'était la seule université bu amoon doole nekk suñ boor yi Faidherbe ba muy dem dafa xusi almet taal ci taal dëkk ba rey sëriñ sa fa nekkoon rey ña fa doon jàngale alxuraan tasaare piir loolu gor su ne bu demee ci sam xel nga naggamlu war ngaa mën a jóg ci sa bopp ndax kat taarix mooy li nga xam ne mooy joxoñ gone fi muy jaar taarix mooy joxe l'avenir d'une jeunesse taarix dafa mel ne rek nga toog ci oto di xool sa rétroviseur di xool li nga passé di xool li nga passé moo liinu passé liinu passé tubaab bi nu gun koo jàngal l'histoire du Sénégal a été falsifiée a été modifiée combi di nga xam ne am na fi tam après avant la première guerre mondiale loolu lu dëggu la lu dëggu lu dëggu fii de tubaab yi dikk jël sumaam yi sonal leen dóor leen duma leen damm leen génne leen réew mi tasaare leen ñi mettre leen en demeure ñi résidence surveillée ci comme bi 1914 bi nga xam ne tubaab bi dafa ne il faut que yéen ñëpp nga ne jote naa ak yéen vous allez écrire une d'excuse pour demandement ma excuse baal leen kii fi nekkoon ñëpp bind ñëpp bind ku bindul néew fi lettre yaa ngi ci archive te mënees na koo génne kan boo ko xante dëgg te jéem a jublu ci réew mi te xam ne li passé li passé buñ ci xoolul fi ñu jëm duñ ko xam mukk duñ ko xam mukk Macky sàll li nga xam ne moom lay plan te moo gënal ñi fi nekk ñii ne patt ñëpp Karim Wade day leen gënal Ousmane Sonko jubóole Karim Wade ak Macky sàll ak Abdoulaye laa la continuité continue loolu lépp mu seen programme ñii may waxal nag li ma leen a xam ñuy ay moroom nekkandoo ci àll bi jàngandoo ci àll bi defandoo lépp ci àll bi te yii nga xam ne yii nga xam ne ñu ngi koy def njariñal Sénégal nekku ci Ousmane sonk am naa yaakaar ne xanaa lu doon ay jaam jaam wala boroom xel gàtt Ousmane Sonko du ngeen ko jënde ak Karim wàdd Karim Wade qui est l'un des plus grands voleurs les plus grands voleurs de ce pays man Idriss Seck wax na ma ne Karim Wade lim fi jële ci alal ci réew mi ci réew mi doomu aadama musu ko fee sàcc malgré que moom sàcc na sax waaye li fi Karim Wade Karim Wade ba mu bàyyi liggéey ba nëgë ni bàyyi te jàngul Karim Wade jàngul il a fait des caisses dans les banques jàngut teesu si njili moom la jël présenté ko kooku tricherie la comme papaam papaam ma ngi ni c'est un tricheur Ablaye Wade amul benn diplôme boo xam ne rek au niveau international est reconnu amut amul Ablaye Wade bu fekkee ne am na xam-xam Ablaye bu fekkoon ne du truand Ablaye bu fekkoon ne diplôme yor baax na baax na coow lii am ci sous région bi dafa ne France dana ko ci dugal wala Nations Unies dugal ko ci wala la coopération internationale dugal ko ci dënk gi Abdoulaye Wade dënk boppam rek habitude maçonnique bi nga xam ne moo ne ci moom loolu lay jéem a plan mais xale yi dafa tuñu Karim du fi jaar déedéet le silence le silence de ces marabouts bu yaakaar yaakaaree ne fi Abdoulaye nekkoon noonu la fi nekkewaat déedéet xale yi jàng nañ yër nañ dem leen ci histoire xool ko te it l'opinion internationale ñu ngi déglu Sénégal en empoisonnant bi ak yu bon ñu def Ousmane Sonko defe woon naa ne dans les premières vingt quatre heures dans les premières vingt quatre heures kilifa yi diine daa ñu génn wax ci wax ci ndax kat ku bëgg a fàllu ci ñoom ngay dem kon bu nee bay xeex ñi dina war a àtte ñoom ca lañu waaye kàddu jibut ndax bëgg dëgg rek lab laa di waxoon Nous, les libéraux, nous allons rester plus de cinquante ans qui est demi-siècle dama ne yërëm leen xale yi yërëm leen xale yi j'ai quitté ce pays en 1975 am yu ma fi naqar rek ma dem gedd réew yi dem je n'ai jamais consommé un centime un centime du trésor public dama ne juróomi dërëm juróomi dërëm yi bàyyi ko ci trésor bu Sénégal man Ousmane Dramé mën naa koo waat maak sama njaboot di dëkk ci réew mi kon fi may ay tool ngir sa maam li fi Amadou Lamine Dramé def ba joxe boppam maam yu bari defuñu ko kon fi may ay tool ay hectare war ngaa yaatal sa xol bi may ma parcelle boo xam ne mën naa cee dëkk maak sama njaboot ngii ngeen bëggee réew mi doxut doxul de doxut boo gisee réew mi ne pat Sénégal dañoo respecté sax droit mais nii Macky Sall nekke nii kilifa yi aada yeeg yu di nekk ci réew mi Sénégal képp a koy nangu bu doon Rwanda ba tey jeex na kenn waxatu ko bu doon Sierra kenn waxatu ko bu doon Libéria kenn waxatu ko kan dellu waxante dëgg jël réew mi tabax ko teg ko ci loxoy xale yi ñu defe ko ndax mag ñi xamuñu dara mag ñi xamuñu dara buñ xamoon dara heure bii Sénégal am résultat bu mag ñi xamoon dara nous avons avant nous avons par exemple des ressources yoo xam ne dafa tasaaroo ci réew mi waaw dama ne ab dof sax bu yoroon réew mi man koo defar en 1960 Sénégal moo ëpp doole Qatar tey li Sénégal am dama li Sénégal am Qatar amul un quart ba te tey waa Qatar ñuy sarax luñ lekk waa Qatar ñu nu yóddee asaka te booba kat réew mi kan waxante dëgg li fi nekk rek tubaab bi musta nangoo wax ak ceddo yi tubaab bi dafa ne ceddo du bind ceddo jàngut ceddo day jàpp jaam di jaay ceddo du julit kenn xamul lu mu doon ceddo day naan sàngara ceddo yi daal duma wax ak ñoom ana ku ma raw na waxal sëriñ si la mën a waxal te pour mu wax ak sëriñ si foog mu juboo ak ñoom moo tax mu chargé leen ne chacun parmi vous va me remettre une lettre d'excuse ma jéggal la waaye guerre bi may guerre ñu naan 14 18 vous allez mettre la main là-dedans moo tax kilifa gu fi nekkoon gu ne jox ko tubaab bi lu ëpp junni soldaar junni soldaar jox ko tubaab bi man moo bëgg a rey ah génne ma sama dëkk tasaare réew mi ah ñii nga metti à demeure ñii daw exilé yow ngay xeex ngay xeex mara sot yëkkati plus de deux mille militaires jox la ba fay koppar di la ko jox dama ne xale yeewu leen yeewu leen yéen sa xale yi perte ngeen mais ñi ngeen di liggéeyal mooy seen doom yi dikk ëllëg seen bopp yi dawali jàkkaartaa ci ne amul leen benn xam-xam buñ ci def bu wutib jàkkaartaa ne ci tere bi téeréer yi jàngaluñ leen seen moroom yépp dans les universités il faut aller à Boston voir les universités dama ne Sénégal bokkul ci deux mille cinq cent universités ëpp doole ci àdduna bi Sénégal bokku ci le Sénégal ne fait pas partie de l'université de Dakar qui a cent ans dama ne ñeent fukki junni wala junni junni université yi ne ci àdduna bi yu baax yu baax yi Sénégal bokku ci bu ndar rawante ci ndàdd yi lay jël comme ni mu nekkee le vingt-deuxième pays le plus pauvre le plus endetté le plus corrompu du monde entier fi Sénégal toll dama ne yëg ngeen ko da ngeen a ragal wala ngeen yëg ko amu leenum njàng wala ngeen yëg ko amuleen leen xam-xam lii jar na daw génn réew mi Maroc suñ doom gis ngeen gaal gi li ci gaal yi kenn xamut nu mu toll may liggéey ki ONG di dem ci ñoom xale yi lab ci géej gi ak xale yi tagay ci frontière bi ma di ci xëy xam nu mu deme Karim Wade jël suñu alal nekk ak moom ay at ci réew yi naar yi di koy yàq bàyyi ne pat ci réew mi fi mu toll tey ay kilifa yi di ne bëgguñu andi Karim. Karim Wade n'est la solution Karim Wade peut-être votre solution mais il n'est la solution du Sénégal kenn nekk ay nit ngir yàlla xool leen suñ doom yi taxawaalu ci àll bi y a combien de Sénégalais qui sont travestis pour rien suñ doom yi juddoo ci àll bi bu ngi leen gisee dañ leen di yërëm dégg nu wolof dégg nu tubaab dégg nu anglais amuñu diine xamuñu lu xew ngeen dàq ñu daw ab li réew mi ne ci àll bi boobu ba ndëgë ni te yàggin yàgg ci àll bi noo leen man ba tey te noo leen tane il faut être honnête il faut être honnête waaw concert bi ngi tëgg fecc way tëgg fecc way tëgg fecc way sikar sikar fii sikar sikarlu fii xam-xam mooy defar am réew dem leen jàngi cette politique de nervi ne marchera pas en tant que des musulmans vous dites des musulmans quatre quinze pour cent de musulmans gë amul leen li ngeen jox seeni doom ñu seex ko amul leen ko xale yi jàngi jàngi ab kaye sax dañ rusalaat seen bàyyi ndax seen bàyyi amu ko dama ne vous nous emmerdez le retour de Karim Wade ne sera jamais jamais permis par le peuple sénégalais si nous sommes dignes si nous sommes de dignes fiches bu fekkee ne ay góor lañ am une dignité Ablaye Wade duñ ko bàyyi manipuler ñu Ablaye Wade ci ouverture mosquée bi gis ngeen ko jumaa joo xam ne àddina bépp a taxaw di ko xaar jumaa joo xam ne dama ne àddina bépp a taxaw di ko xaar ñoom franc-maçon ñu àndandoo duggandoo ci biir jumaa ji ba ma ko fi jëkkee wax ci dañ ma fil sama gémmiñ Ablaye waxut dëgg di fa jubóor jubóoru ak ak ak ak ak taxaw di wax naan juboo nañ di fóorante kenn ku ney jooy fekk du dëgg dañoo dellu ci seen leçon maçonnique ki pour encore tromper le Sénégal en passant en passant par une mosquée franc baaxut te kilifa yi nga xam ne ñoom lañ yor seen xam-xam àggu ci xamuñu ko mennum Alaaji Abdou Aziz si moo fi xam luy framason maçon d'ailleurs ji Abdou moo nu ko leeralal ban xam luy framason et pourtant y avait à l'époque des marabouts yoo xam ne xamuñu ne la franc-maçonnerie lu mu doon xamuñu ko ces francs-maçons nous ont infiltrés en 1958 ils ont installé la république toog nag toog toogaay bu dëgër ba système boo xam ne ñu ngi ko def rek day dëppoo ak cette culture maçonnique ba tax na ñu sakk suñuy nopp mënuñu dégg suñu doo mënta dégg Ousmane Sonko wax na ba dee Ousmane Sonko wax na ba génn bëgg génn àdduna Ousmane Sonko wax na ban posone ko Ousmane Sonko dama ne dafa war a toog noppalu parce que Sénégal jëru ko il va se tuer pour rien dama ne ñoom Cheikh Omar Diagne ba ci man meeg ñëpp nous avons reçu n'importe menace pour lan pour réew moo xam ne noo ko moom doo ko fee saxal li fi am muy islam li fi am mooy diine réew mi ko amul diine waroo ko fee toog alxuraan dama ne ku ko déggul ku ko déggul dama ne waroo dugg assemblée nationale il faudrait un quota à l'assemblée nationale pour les chrétiens un quota pour les imams parce que réew mi kenn mënu koo yor te kenn waru koo yor boo amul diine lay Wade du jullit waxul dëgg ba ma ko xamee yàgg na maa leen ko gën a xam ba mu créé une part contribution pour le président de la république ba ci PDS parti bi Senghor ko moom mais nous allons installer un parti islamique au Sénégal et ce parti va relever les défis. Nous tendons la mais au partis politiques. Nous tendons la main à Passif de Ousmane Sonko. Et je suis certain que nous allons travailler ensemble parce que nous sommes des hommes, nous des musulmans et des Sénégalais. Karim Wade bu leen nangu mukk mu jaar fi duñ ko nangu dama duñ ko nangu Karim Wade duñ nangu mu jaaral fi daa xudoo jàng gënuñu ndey gënuñu bàyyi gënuñu ab juddu der bi xonq na réew mi dooni complexé complexé koo seet mi ngi xolli ab deram bëgg a mel ne Karim Wade ñàkk jom googu moo tax séeri doom bi kott gaal gi dee dama ne réew mi réew mi jumaa joot tegoon avion ni ko bëgg a génn réew mi kaay génn bu wax foo jëm bala ñoo sëlmal avion bi fees del ndax am na ñu dul julli bés ba ndax jëkkante place kan honnête Karim Wade talu leen l'argent des Sénégalais qu'il mange à Dubaï l'argent des Sénégalais qu'il utilise au Maroc Abdoulaye Wade ne pat boo xoolee Karim xam ne mu ne pat Abdoulaye waaye durant ces quinzaine d'années Karim wàdd suñ xaalis lay tukkee juróomi dërëm yu mu génn ci poosam c'est l'argent du trésor public li fi nekk nañ koo wax te bu ngeen defee ne nii la àdduna bi continuer déedéet nii duñ ko nangu li dee bari na li dee bari na ci ay kër lañ jóge lii dee dañoo am ndey am bàyyi seeni ndey ak seeni bàyyi doon yaakaar ci ñoom dara même ñi dund ñuy dund amuñu ay pexe la politique de la peur la politique de la menace di menacer rek di yi tëj ay xale yu ndaw xale yoo xam ne ah leen lu ñu lekk jàngaloo leen li nga war ci mu defu ko dul dañ ne am ah, mbaa Macky Sall ñu yàpp tëj une armée qui devrait répondre à ses conséquences pour remettre ce pays en ordre ñu ne seetaan ñuy dóor rek di dóor ak a ak a damm xale yi dama ne ñépp a jaaxle mag mu tumuraankewul gisuma ko ndey dañoo xaar seeni doom ba bi yaaw dañoo xaar seeni doom ba génn àdduna am nañu daw ba tey duñ jël si ñu ngi taggatéem bi ci àll bi ñu jël alali Sénégal naan Karim Wade Macky Sall Karim Wade Sall pour lan nous sommes des hommes et nous avons le droit de vivre lii leen franc-maçon dugal génn leen ci dama ne Ablaye Wade dama koo xam te su doon farle politique tax ma Ablaye Wade lay faral le seul Ablaye Wade en 1976 mosuma si yëkkati cent mille francs jox ma ko pour payer ma decole d'école le seul Ablaye Wade moo fi ma samay cent mille francs mais dafa nekkul ci dëgg moo tax ànduma ak moom Ablaye Wade waa daan laa dëkk ki leen mag bàmmeelam ñoo ko suul waa daan dafa judd indilu bakkan sa baay bi mu jaaxlee muurtoo la wàdd waa daan da ñëw ñu dalal ko mu dëkk ak noonu sa baay bi muy jëli bagaasam waadaan di ànd ak waa caar saadi di dem Casamance ci jëndi tiir di ko indi comme démb ci comme comme démb bi ñoo ko nettee du yàgg yàggul Kébémer dëkkoo fa danga faa dem waadaan nga toxoo parce que li sa baay bëggoon di jënd gerte ca pénc ma sëñ waadaan nangu ko woon moo tax nga nga toxu ji Kébémer ànd ak naa di saadi saadi dem Casamance jëndi tiir ba ni nga ju ba juddoo Kébémer mais sa baay waa daan la mas ci julleeg lépp fa la koy defee te sa tànk bi mosoo ko faa dëgg sa tànk bi mosoo ko dëgg waa daan doo nitu dara boo defee da nga indi Karim Wade nag man mu toog di saw ci sama kaw juum ga je vais xoola je dama ne je vais ak sëriñ boo la mën a àndal man laa bàkk dama ne yoonu Sëñ Tuubaa wii li billaahi wallaahi billaahi wallaahi samay maam liñ ci def dama ne li ñu ci daj li ñu ci daj ñun waa waadaan ñun waa waadaan liñ daj liñ daj ci yoonu suñ tubaab yi sa amul sa menn maam mu ci ma sa daj mu daj un quart ba amu ci sa baay maam Mourtala Wade ngi jëkk a takkee soxna Kajoor mus laaj la jëkk a soxna te sa njéeri waadaan moo ko may sa baay yow la sa vie privée du mu ci dugg mais dama lay xamal ne sa baay sa baay ba mu am vingt deux ans murtu la wadd waadaan la ko fekk mu bëgg a jënd gerte ci pénc ma sëñ waadaan doo ko fi jënd mu lekk xaalis tubaab yi ba mu dem Casamance li koy bu Casamance dafa mënta jënd gerte seng yi ko xaalis seng yi ko tubaab bi joxoon pour mu créer ab ci la paas ànd ak naaru kajoor yi dem Casamance di jënd tiir di indi jabaram ñi nekkoon fi ñu tas ko mu takk sa yaay yow mu takk ko Casamance la ko takkee ba mu ko takkee di ko indit yóbbu ko sa kër bàyyi waaraan la indi sa yaay waaraan la ko indi bi sa yaay di ñëw ab ëmb la indaale mais waaj bi metti ëmb bi tuuru ñu denc xale ba waadaan li ma xam coow bari na dama ci bëggut a wax ndax looy ubbi sa gémmiñ wax ju ñaaw lay wax parce que kenn ku nekk palaat bi nga téye di sàq mi di lekk bëggoo mu jeex dafa nga ne dama koy fël waaye sëñ Tuubaa aaye nañu alal yi ceddo buur yéeg saay-saay si waaye dëgër bopp képp moo lu jàpp waaye billaahi wallaahi ëllëg am na billaahi wallaahi daanu faatu bu nu amee wërsëg sax dañuy am bàmmeel ndax bu nu amul wërsëg mën na faatu ci lakk wala ñu faatu lapp wala ñu faatu réer dox ba dee comme ni immigré yi def immigré yi def dee ci àll bi ñëpp ñëpp ngeen tëdd fii rek di jaayante suuf di weccante suuf waaw loo mool nga di ko lekk te dangay fàtt fàtte ne ngay dee ba ko sénégalais képp laa gis jullitu sénégalais day fàtte dee dee da koy fàtte defe ne ku ko séqal rek defe ne yaa koy jëkk a dee te yàlla mag màggat gone liir bi dooru judd rabu àll njanaaw yàlla day fàdd day fàdd nu ko neexee yow nga yaakaar ne ku ko séqal defe ne ah moo lay jëkk a dee ngay def say plan ak di organiser waaw réew maa ngi nii bu ngeen xoolee nag xoole ba Ablaye dellu si fi Karim Wade koy bun tuxu waaw tubaab yi bu nu amul bu nu amul torox parce que liñ am ñoom amuñu ko gaz lañ soxla te amuñ ci dara ndax Soviet Union tëj na robinet bi ñu war a ñëw ne foqar ci bu Sénégal ngeen di xoole waaye parti islamique bi ñuy taxawal bi ñuy taxawal nous faisons à tous les Sénégalais ndax nekkuñu ci diine te daañu ko fi delloo si par force par force diine daa fi delloo si charia amul ci réew mi nangu alxuraan gedd charia fu ngeen ko mas gise yàlla wàccal nu charia nga xam ne charia mooy le droit islamique ngeen di quatre vingt pour cent de musulmans tubaab bi indi démocratie sax dafa ne la majorité fait la différence dans une démocratie vous représentez un taux de quatre-vingt-quinze pour cent taxaw <laughs> tubaab bi leen force ñuy taxaw di saw laïcité quest que c'est que la laïcité suñu borom lekkum diin ku mu lee diin ñu naan laïcité ànd ak franc-maçon yi jaxase réew mi tey ñun ñëpp yoonu sawara lañ jël kenn dellusiwaat ngir yàlla jéem a jubbante xel yi ak bopp yi xam ne liñ yàq bari na te yoon yu ñu jël billaahi wallaahi yoonu dee dem sawar lañ jël parce que lii ci réew mi bu ngeen defee ne diine la ndax ngeen seen bopp de. ndax ngeen sa saa nga wax naa leen ko yàlla moo ne ñu attewu charia ñu lànk dañoo lànk dañoo bañ li tax ñu bañ mooy quatre-vingt-quinze pour cent ay jullit lañ te élection yi dem gañe ko cette locomotive de Satan kii laa lay laïcité ñu imposer ko dans un système islamique ñoo bon ñoo bon ay complexe yoo xam ne ah ku ci làkkul naar wala làkku tubaab def nga ne waxoo dara Nous sommes des fous, un peuple fou, un peuple médiocre, un peuple perdu de chemin, un peuple, un peuple, un peuple négatif. lu méttee ngi nii lu mettee ngi nii xale yi wax nañ bay bëgg a dee Cheikh Anta Diop fi la aw bëgg bu seen i bopp ñu lànk te Cheikh Anta Diop ay bokkam ma fàdd ay bokkam ay bokkam ma fàdd Cheikh Anta di julli di lépp doon bokk doon taalibi dëkk ak noonu daq jàng ci àdduna Senghor musu leen koo gis Senghor musu koo gis ragal dëggal ragal dëggal képp moo tax ñu forcé ñu Senghor ñu di ko nangu di kenn mës ta gis lu mel nii kenn gis mës ta gis waaye nag xale yi ma gis ak internet bii les nouvelles technologies de l'information et la science artificielle bii nga xam ne moo am xamu ku dul yeewu waaye doomi Sénégal yi daañu yeewu seen ndey amuñ lu ñu lekk seen ndey six heures du matin ni jóg dem marché seen ndey yi dama ne yóbbanti ci seen kër nijaay yi di ñaan duñ lekk nijaay mënta lekk bàyyi ay jarbaat mënu ko lépp luñ am dañ koy séddoo ak ñoom liggéeyu ñu ne ci mbedd yi taxawaalu boo ñëwee Cees gi taalibe yi kenn mën laa wax fi kari waa Wade taalal ñaari baaram mbedd Cees yi li fi di ay taalibe kenn xëy te kat mosuñoo xëy liggéey dañuy fen passé anéew bi boo ci jaaree oto saxaar gee lay fiir baar bu nu fa sax sax amuñu ko fa ñu dañ fontoo waaw kon boo jóg ci bopp te dimbali xale yi ndax yi jot jot na njàng bi dara baaxu fi amul lenn lu fi baax xale yëpp bëgg a dem ñëpp bëgg a génn réew mi maa ngi leen di ziare ñëpp tey ñaan jàmm xol bi rek a tàng xol bee tàng te foog mu tàng nag nit képp la waaw nit képp la kontaanu si moom réew dama koy wax waaw. kon asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi ziare bu baax man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences yàlla ñu buur yàlla sutural te indi jàmm ci réew mi.